وسلم الله صلي وسلم الله صلي وسلم الله صلي وسلم الله على المسمى بسائب الحجة يا من دم وآلي وزبي يا من جعل خطيك قمتي خياري فالجعل صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم بالي الاوثان على النبي سائد السلطان وآلي وزعبي يا من سلك وآلي وزعبه يا من سلك كل سبيلك خويما فانسلك صل وسلم يا مجل الدائي على رسول سائد الرداء وآلي وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيما فاستنار صل على ذي البديع البديعة أي سائد الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآلي وذهبه في الآل والمآل صل وسلم الله على ستاج يا من بي فتى سرتداجي أي صاحب المفر والمجاري ولا لوزعبي زر رجائي يا من على عرشك زهد التوائي على رسول صاحب اللوائي سل وسلم في الجميع الآلي وصحبه في الآلي والمآلي يا وايب الأمان والأزراقي على رسول الله سايب البراق سل وسلم في الجميع الآلي وصحبه في الآل والمآل يقول بأفضل العطايا يا من معه يوب والقطايا وليكن بالصدق نائب القاتم يا من ضيا والي وزعبي يا من قلب لي قلبا كل من عديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سائب العلامة صل وسلم في الجميل آلي وزادي ولستجل سؤالي على الرسول السعيد البرعين صل وسلم بسوي الألعين من آلي وزعبي وانصرني بالمؤمنين قلوبهم بسلني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بسوي الأعيان على النبي سائب البيان صلي وسلم بسوي العيان يا سلقير وسلما عليه في الآل العزام وصابي كرما هذا النزام على رؤوف من غزي بربي إسلامي يا من عين سل وسلم في الجميل آلي سل وسلم بجميل آلي وصعبي في اللالي والمآلي سل بدليل على عين العين بتسليم على عين النعيم والسيد الكونين سل بتسليم على عين النهيم وسيد الكونين باسط النحيم وعلي وذبي وعنهم بلا أذان يا خير مبق منهم صل وسلم يا منير البر على الذي سميت عين الخر وآله وصابه وبالبرور جدلي بلا حداوة ولا خرور صلي وسلم يا إلهي يا نبي الله عبد الله وعلي والزبي يا باغيا لي كان دون الهمم قد صلاة لخطيب أممي وسلمنا عليه في الآل مها شعبه يا من دعاء سمها سل بتسليم على عيس العراء ورابي الرتب كاشف الكراب واله وصحبه وتحمده هذا نظام عمد مهن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بر التمام وكريم مخرجي واله مع سحاب الكمل وارفع لوانك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدان يا أحمد يا ربنا صل وسلم أبدا على رسول وزرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أباد على خليلك زراج وانحبات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمد وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وحبله جملة ما تختار لا لديك إنك المختار واحتمى عليه من ذنوبي يا ماليا بجاي ذنوبي وابل من يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتبه وحبل ما عبثه أو عسلا بأي وات بنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابت أفضل الكلام ربنا سلام مي القديم إلى الذي صرت له خير قديم يا ربنا خلل مي كلمه وهبت بجايه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بسر خليلك الحبيب بقمتي وكل صالح لبيب امين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى موسفك يا من لوجهك الكريم الزل نظام كتبت خلي الأيادي عزام بلا أسن ولا جوان ولا خرر ولا ردا ولا بلاد ولا ضرر بلا أسن ولا جوان ولا خرر ولا هدا ولا بلاء ولا ضرر هذا الأراضي وسما سل بلا عد حلا من قمة قد قبلا سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الآل والمال وسلم عليه واغفر يا غفور لغارئه وأليمه الخفور وسلم عليه واغفر يا غفور لغارئه به النفور وجل حروف سنظام شرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وتعبي قبل توجه اللحين إلى سوى قريه أنت المحين واجلب لمن يقرأه خير مراد واجلبه يا رب الورى خير مراد وهب له لمن يقرأ ما يبيت به سواه يا جميلا يزيون هذا البلاد والعباد صليا وسلما على نبي وكن لياه بآله وصحبه والرفع إليك سعي بالرضا يرتفع في آله وصحبه وترفع إليك سعي بالرضا يرتفع asalaamaaleykum wa rahmatullah man nag maa ngi dalal ki nga xamante mooy jëwruñu Euh, Baye Ndiaga Sarr bi nga xamante ne moo nekk fondation Sopp Serigne Saliou si Gambia People bi nga xam ne moo yore communication bi tey ji nag ñu ñëwoon fii nag si bisu xasida gi nga xamante ne moom Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid woote muy bisub tey jii nii di 11 août euh, ci 11 août bisub tey jii nii di àllarba sëñ Muntaxa joxoon ci ndigal nag fépp foo xamante ne ab taalibe la nan ko fi dundalee foofu comme ni ñu ko dundalee Touba fii na ñu ngi ne kër sëñ Touba gi si Bakaaw nag ñu ngi bi nga xamante ni Serigne Cheikh Saliou tamit joxe na ndigal tamit bépp zone boo xamante ni yaa nga fa muy fondation sopp Saliou na ngeen fa daje tamit def euh, ndigal li nga xamante mooy Serigne Muntaxa Mbàkke joxe léegi nag man maa ngi fi ñu ngi waajal bésu bu am solo muy le 22 incha allah août ñu ngi waa fondation sopp Serigne Saliou ñu ngi war a dem Touba ziar ji Serigne Cheikh Saliou di xalifa Serigne Saliou Mbacke ci kaw suuf di ñaanal yàlla mu yàgg fi léegi nag jëriñ Ndiaga maa ngi lay ziar bu baax a baax sëñ Ablaye Kane ñu lay doolee ziar di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati Seexuna Seex Saliou Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Seexuna Serigne Saliou yàlla na yërmandeem tuuru suñu kaw mbokk yi ñu ngi leen di ziare bu baax di leen tuubal di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen di ziar mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekk di ñu interview nii muy waa ñoom xam ne ñoom Badru fi waaw ñu ngi leen di ziare bu baax di leen jox seen mu mel ne tey buñ fi ñëwee rek bala ñoo dugg ci euh, dara li nga xam ne mooy euh, objectif ziar bi ak waxu ziar bi dañuy wax li nga xam ne tamit ne moo ñu fi indi tey ji moo ñu fi dajale muy loo xam ne ndigal la loo xam ne jóge na ci sunub sëriñ di sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Tuubaa mu digle bisu xasida ñu tantale ko sëriñ tubaa jàng fi xasida jàng fi alxuraan loolu nag kontaan la ci ñun ak mbégte Ah, lim mu contane kontaan ci ñu mbété ndax niñ ko défé fii di bakaw non la ko zone yépp défé fi nga xamné moy Touba ndax bo bo jumul li nga ak organisation bi ko ci loxo fondation kon la bu baax ci nga ci liggéey bi nga ñun ci doxal ci Gambie ak sant boo xoolee ni ñu ñëwee ci bis bi mi nga xam ne ñu ngi fii ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk Bakaaw waaw fondation Soppay Serigne Saliou am nañ ci cër boo xam ne loolu ak sant la kon nag ni soññ bokki taali bi rek ñu gën a bëggaat liggéey bi gën a taxawaat liggéey bi ndax lii lépp ak cant la parce que soo gisee li mu demee nga xam ne lii lépp ak cant la parce que yaakaar naa daare fi nekk bëri na ah boo xoolee Gambia daare fi nekk bëri na te boo xoolee fondation Soppay Serigne Saliou si mujjee sosu fii si la bokk waaye ak pësteef rek aku bëgg ak akuk bëgg moo ñu yóbbule moo ñu yóbbu fii ñu nekk kon nag loolu dañ ci sant yàlla bu baax eh, di soññ mbokki taalibe yëpp ñu gën a góorgóorlu gën a jàppaat liggéey bi ah di soññee tamit mbokki taalibe ci li nga xam ne moo moo siyaar bi nga xam ne moom lañ jublu si muy la 22 ut a le 22 août boobu nag nag ah dañ ciy soññ mbokki taalibe rek ñu waaj ko rek comme que bii mooy suñ première euh, yoon bi nga xam ne moom la ñu war a jóge fii bi dem ci siyaar bi kon nag nañ ko gën waaj rek lépp li nga xam ne moom moom moom lañ moom lañ ñu fay tere ñu fexe ba buñ ko fa yóbbu lépp loo xam ne tamit sëñ bi bëgg na ko ñu yóbbaale ko fa ñu doon demee daal ñu doon ñu wane fa yar ak teggin doon dëgg-dëggi murit doon dëgg-dëggi wane fa dëgg-dëggi taalibi tamit waaw loolu daal la ñu soññi mbokki taalibi yëpp sant nan nag bu baax nag ci li nga xam ne moom la liggéey bi di doxee sant nan bu baax ci li nga ne moom la liggéey bi doxee parce que gis nañ ne bin liggéey bi sosoog léegi yàggut waaye membre yi ñu ngi yokku comme ni comme comme ni ko comme ni ko bëggee parce que ab liggéey moom bu sellee rek nit ñi ñoo koy bëggal seen bopp ab liggéey moom bu sellee suñ suñ ñi ñoo koy bëggal seen bopp kon nag liggéey bi ñu nekk nañ ko gën a gën koo bëgg di ñaan yàlla nañu yàlla ñu borom liggéey bi teel li nga xam ne mooy liggéey parce que ñun ñii mënuñu muy muy man di ki nga xam ne maa yor communication muy jëwriñ muy keneen ak keneen kenn fii kun dimbale rek moo fi am sëñ moo man sëñ bi moo man liggéey bi sëñ bi moo ko yoral boppam fu rek sëñ bi moo ko nan gën a nan gën a may soññ daal mbokk taalibe ñu gën a doon ay dëgg-dëgg mu rek gën nekk taalibe fu ñu sëñ bi woo nañ nañ ko fa demal suñ jëmm ji nañ ko ko ko ko jox buñ ñu soxla dara barki suñ bàmba suñu doolee poos tamit nañ ko jox suñ jëmm ji sax bu ko laajee sax dañ ko ko war a jox parce que ñun sëñ bi lañ am barki suñ tuwaa boo xoolee bés bi ni mu demee rek tey ji nga xam ne ah, lii nii sëñ bi rek moo ko man parce que ji ku fi keneen daggaloo woon sa liggéey doo ko def waaye boo gisee tey ji ñëpp ñi nga fi yor dëkk bi ñu bëri liggéey moo leen fi indi ñii ngi yor seen i place ko ñii ngi yor seen i liggéey seen i business bàyyi ko ngir teewal sëñ bi kon nag loolu li li li wane loolu mooy sëñ bi moo man loolu kon nag li ñuy soññi mbokki taalibe ñu gën a bëgg li nga xam ne mooy liggéeyab sëriñ Tuubaa bi amul gaam bi laa nekk gaam bi nga nekk texul nga dund ak texul nga dund dund li nga xam ne mooy mur gi texul nga dund tamit li nga xam ne mooy ah, liggéeyub sëñ bi parce que affaire bi ci xol bi la affaire bi ci bi la nit li ngay li ngay li ngay li ngay yéene boo nekkee Tuubaa yéen a jooj noonu da nga ko war a doxal boo nekkee Gàmbi soit que nga nekk Touba wala nga nekk Gàmbi liggéey bi benn liggéey la te jëmm ji génn jëmm la te xool yëpp benn la te koo bëgg kun bëgg muy ñoo bokk ni liggéeyal bëgg muy jëm muy jëm muy Serigne Saliou Mbacké ak Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul kon nag liggéey bi nañ ko wanee ba fépp fu mën di dem rek nañ xam ne Serigne bi la ñuy liggéeyal fu mën di dem tamit nañ xam ne liggéey bi Serigne bi moo ñu fa yóbbu amul ñu ngi Gàmbi amul ñu ngi ñu ngi Touba li waa Touba jëf war nañ koo mën a jëf fii ndax ndax ñun boo xoolee ñi fi jóge ñëpp ay mbokki ay ay ay mbokki Touba la ñii ñu ngi dëkk tubaa ñii ñu ngi dëkk yeneen Touba ñëpp xam nañ liggéey murit ni mu doxee man contre naa nga nekk Gàmbi naan aw ma jotu daayiraak wala aw ma jotu dem si ay ndaje ak yooyu man contre naa ko wax dëgg yàlla maa ngi ci soññ mbokk taalib yëpp képp koo xam ne daal yaa ngi seetaan euh, li nga xam ne mooy site bii nii soo gisee suñ suñ message bii nii ñu ngi lay woo ñun waa fondation Soppe Serigne Saliou ci li nga xam ne mooy suñu liggéey liggéey bi nag pour si bëggee dugg yomb na am na koo xam ne moo nekk trésorier bi moom la moom moo bu duggee moom lan lay jox numéro moom moo lay wan li nga xam ne mooy jëmmi jëm jëm dëgg-dëgg liggéey bi ni muy demee boo ñëwee liggéey bi li si liñ si aay lépp am na ay sart yu ñu teg ak yi nga xam ne bëgguñu ko ci dina la ko expliquer su la liggéey bi doyee nga bokk su la liggéey bi doyee di nga bokk noonu kon nag ñu ngi woo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Gambie yëpp képp koo xam ne bëgg ngaa jokk ci fondation Sope Serigne Saliou ñu ngi lay ubbil suñu loxo muy góor muy jigéen en tout cas ñu ngi ubbil ñëpp loxo rek Euh, pour ñu ñëw bokk fondation Sope Serigne Saliou Ablaye boo amul beneen laaj ñu jàll. waaw kontaan naa trop si question bi nga xamante boo euh, posé naa la ko bi nga xamante ni tamit nga tontu mu lu am solo kontaan naa mais yéen nga yow mi nga xamante yaa yor communication zone Gambie bi fondation Sope Serigne Saliou nga yor communication bu am doole nag na tey ne liggéey fu mu yegg rek communication nga fa yeggal tey nag ziar bi nan nga ko mën a ko yéen yéen nga xam ne yéen a yor communication fan ngeen si toll si euh, bi ah. sun jàngatee ne instant yi ni demee mooy liggéey bi communication moom rôle am def na ko bu ne bu doon 100 pour cent mën na ne euh, quatre-vingt-quinze pour cent yëpp jàll na parce que yaakaar naa ne defar nañ ay affiches yu bëri yoo xam ne dañ koy soññi di ko dugal ci groupe bi pour mbokki taalibe yi di ko gis pour bëgg a pour gën a bàyyi xel liggéey bi Ah, amna tamit ben lien bo xam dañ koy dugal chaque jour ben affiche bo xam jour si nga xam mo moom moyen si fondation bi sax dañ la koy dañ la koy jox pour nga mën a bàyyi euh, xel li nga xam moy mooy bi muy ci Instagram di Facebook di WhatsApp lepp li nga xam moy mooy euh, euh, xibaar mi ngi fi jàll nu mu waree kon yaakaar na né fii ni li nga xamante tibine moy communication bi mom mën na né bu doon 100 95 pour jall yëpp en même temps tamit li nga xamante tibine tamit moy siyaar ba ñu ngi fa wajal ay ay ay yi nga xam moy ñu yuñ fa wara def Ah, ci waa communication yi nga xam ne mooy euh, ay sites yoo xam ne ñaar site war nañ leen faa invite pour ñu ñëw ah, defa découvrir li nga xam ne mooy bis waa waaw lu mel ne xam naa du ma cité nag ay tur parce que ñi yor liggéey bi xam naa am na ñun tànn waaye am na site yun tànn yoo xam ne ñoo war a ñëw taxaw li nga xam ne mooy liggéey bi ah, en même temps tamit bisu ziar ba dañ def lu mat ay ñetti écran plat ba ba ba ñeent yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo nekk si biti xëy amuñu accès jàll ci biir li nga xam ne deug deug ziar bi ñuy mëna xel loolu nga ne bi loolu tamit loolu tamit loolu tamit mi ngi ci mi ngi mi ngi ci bi ñu ngi dox ay ne allah taala ku ci bis bi rek xel en tout cas dal communication tamit def tamit ay yi nga gens ne carte yi nga ne yi nga communication ah, dañ koy ay dañ koy ah, ah, fi nga communication da nga am accès pour ci bi fu la neex nga dugg fa te tamit di nga am tamit pour euh, dugg ci mbokki taalibe yi nga xam ne laaj leen li nga xam ne mooy liggéey bi ak ni muy demee comme genre bi nga euh, bi ngay nii rek communication mun na koo doxee ci liggéey kon nag ñu ngi euh, soññ mbokki taalibe bi yëpp daal ñu waaj li nga xam ne mooy genre bi képp koo xam ne daal ba ngaa xam ni liggéey sëriñ ñu liggéey fondation soppe sëriñ Saliou doxee dëgg-dëgg ñu ngi lay soññi nga ñëw ci li nga xamante bi ne mooy ziar bi nga xam ne moom la ñu war a amal le 22 août ñu ngi ci soññi mbokki Gambie yëpp ak xam ne liggéey bi dafa waraat dafa war a tas warut a yem fii barke Serigne Saliou liggéey bi warut a yem fii kenn ku ne na ko jël def ko liggéey bopp képp ku mën ci informé ak wax ak xëcc mbooloo képp koo xam ne liggéey bi ñor ko rek ñu ngi ñaan nga wax ko ko mu ñëw li nga xam ne ñëw bokk ak li nga xam ne mooy liggéey bi Serigne Saliou parce li nga xam ne moo moo ñu fi indi mooy dëggal jubal leeral bëgg Serigne Saliou dara caaxaan indi wuñu fi kon nag képp ku bëgg lu baax rek ñoo ngi lay woo képp lu bëgg baax rek ñoo ngi ku fi ñëwee neneen nag beneen beneen façon jikko nag ko fi ñëwee indi ko si ñun yaakaar naa ne sëñ bi moo lay génneel boppam ñun moom loolu duñ amul sax luñ ciy def sëñ moom xam na xam na bu baax am na fulaan ñi nga xam ay nitam ñi nga xam ne moom lay taan ku ñëw nga xam ne indi nga fi beneen façon nit tamit yaakaar naa doo yàgg ci suñ biir ndax ndax mbooloo moo dëxiwul noonu dëxul ay caaxaan soo fi ñëwee ak caaxaan rek yow bu yàggee xam ne lii nii du sob liggéey da ngay da ngay bàyyi ñu ngi akuk leeral ah, ndax nga am ci li xam ne mooy ngërëmal sëñ bi kontaan naa bu baax a baax a baax jëwriñ Njaga Sarr mi nga xamante ne moo yore communication fondation soppi Serigne Saliou mu yor rôle bu am solo nag si Gambia people waaw maa ngi bëgg dalal na ki nga xam ne mooy jëwriñu fondation bi di jëwriñ booba jëwriñ booba maa ngi lay ziar bu baax a kii nag mooy jëwriñu buuba mooy jëwriñ bi nga xam ne moo jiite fondation Sopp Serigne Saliou si Gambia maa ngi koy laaj jëwriñ buuba fondation Sopp Serigne saalu si Gambia nan lay doxee waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Touba sunu yaakaar yàlla na yërmandeem gën a sotteeku sunu jëmm yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Badru TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di santaat Serigne Saliou dimbali gi mu nu dimbali ba ñu daje feeg yéen ci li nga xam ne mooy interview ci bés bi nga xam ne Serigne Mountakha moom Serigne Saliou moom Serigne Touba moom mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba moo ko woote muy bes boo xam ne journée xasida la waa fondation sopp Serigne Saliou amoon ci pàcc di liggéey teewoon fi ci wàllum xidma ak jëf ak li nga xam ne wax dëgg fa yàlla mooy wàllum séddale loolu noonu ñu ngi ci santaat Serigne bi ci teewaay gi fii waaw jëri Ablaye Kane maa ngi leen nuyu baax yow tamit di la siyaare di santaat tamit ci laaj gi nga xam ne yaa ngi ma koy laaj mooy fondation sopp Serigne Saliou nu muy doxee waaw nun moom ay rek bu nga dégg ay ndaw leen rek ay pion leen dañoo am njiit njiit li ñu am mooy Serigne Cheikh mooy jëriñu liggéey fondation sop Serigne Saliou ndax Serigne seex ku ko xam-xam ne ñaari pàcc lay doxee moo jiite ndongo tarbiye moo jiite fondation Sopp Serigne Saliou te bu ngeen déggee ñu ne fondation sop Serigne Saliou mooy nekkul liggéey boo xam ne taalibe Serigne Saliou la ñeel déedéet fondation am na ñoo xam ne jokkuñu ci waa kër Serigne Saliou waaye koo ci gis xol ba Serigne Saliou moo ca nekk ndax nun nii nga xam ne ñooy ndawi Serigne Touba yi Serigne Saliou leen jamonoon teel Serigne Saliou leen xam moo dee ci sunu xol yi loolee la am ay borom xam yu xarañ lool jaar fa sos ni nga xam ne mooy fondation Sopp Serigne Saliou ñu ngi jaar di nuyu au ki nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñu koy wax jëwriñ Iboulaye Saliou mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey fondation Sopp Serigne Saliou bu ngeen déggee ni fondation Sopp Serigne Saliou toll na fii Gambie ñun bi ñuy sos ñoo tolloon ci 28 zone muy ñaar fukki zone ak juróom-ñett waaye ci xarañuk Serigne Touba ak ci xarañuk Serigne Saliou ak ndaw yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi seenu Pastef dem na ba fondation toll fondation bi toll ci tatitu zone ba zone bi mujjee juddu mu ngi juddoo ba China ñu koy wax zone China ba ba ca toppaat juddoo ba Gabon ñu koy wax zone Gabon kon fondation Sopp Serigne Saliou amut yemuwaay am na fépp nag ci àdduna bi bu ngeen déggee fépp ci àdduna bi mooy à travers au Sénégal am na fépp li ko dalee dakaar ba Fuuta ba fépp fu Sénégal yem fondation Sopp Serigne Saliou jotee na fa kon yaakaar naa liggéey bii nga xam ne Serigne Touba waaw kon ba tey rek dañuy wéyal rek suñuy kàddu ñu ngi dëgmal li nga xam ne mooy ziar te loolu nag moom yow am nga loo ci xam waaw. kon euh, jëwriñ euh, ziar bi nga xam ne moom la fondation bi euh, sopp Serigne Saliou di ziar muy ziar bu am doole si ñu ko war a defee Touba kër Serigne Saliou waa Gambie nag bii na moo nekk seen first time bi nga xam ne moom la ñu war a jugee Gambie war a dem euh, Touba ziar ji ko Serigne Saliou Serigne Cheikh Saliou nan la waa Gambie préparé woo bés boobu noonu. waaw xanaa waaj ko ci ndigal fas yéene jee dem ci ndigal fas yéene faa yegg ci ndigal fas yéene jëfe ndigalu Serigne Saliou ndax kat ziar boobu euh, bi mooy ñetti ci li nga xam ni moom la fondation bi di amal. at bañ ko njëkk mooy 2019 2019 2020 ba ci 2020 boobu ci njeexitalam ci la fondation Sopp Serigne Saliou taxaw fii ci zone Gambie ñu ci taxaw ci on the ci kon yaakaar naa fondation yi boobaak léegi mi ngi dox mi ngi toll ci 8 dugg ci 9 months yaakaar naa Serigne Touba dinu dimbali ñuy dox ba am 135 loolu mooy membre fondation sopp Serigne Saliou zone Gambie kon ñu ngi ciy woo bépp membre fondation sopp Serigne Saliou ci bésub ziar nga xam ne ñu ngi koy fas yéenee amal foofee ca Touba ca kër Serigne Saliou ziar boobu nag ni muy doxee ku ne xam na ko liñ fa gën a soxla yar akub teggin lañ fa gën a yittewoo mooy bëgg akub sopp akub taalibe moo fa yitte gi kon képp bu koo xam ne waaj nga jëm ca ziar boobu ñu ngi lay ñaan loo amoon ci yar na nga ko dolli loo amoon ci ay teggin na nga ko yokk kon ñu ngi soññaat mbokki taalib yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci fondation sopp Serigne Saliou ñu ngi lay ñaan nga jokk ci li nga xam ne mooy Al Badru TV ndax mooy kat première chaîne première télé religieuse fii ci Gambia kon ñu ngi ciy soññaat mbokki taalib yëpp kon na ngeen jàpp ne Al Badru TV mooy sunu télé loolu moom santaat nañ leen ci bu baax. fu may jeexalee rek lenn la damay gis fondation sopp Serigne Saliou soxna yi dañuy muuru ñuy col col gu jot loolu noonu ndigal la ba Serigne Cheikh Saliou joxe la wala yéen a ko créé seen bopp. waaw loolu lu sëriñ bi sopp la. ndax yàlla moo la njëkk a sant nga muur say cër kon fondation sopp Serigne Saliou ci seenu xarañ ak seeni soxna seenu bëgg li nga xam ne mooy diine ak l'islam ñu créé opération muur say cër opération muur say cër nag yàlla moo la njëkk a sant nga muur say cër kon bu nu sëriñ bi dimbalee ba yëf yi yegg fii ci Gàmbi am ay yenn ci soxna ya ñoo xam ne dañoo engagé wu fas yéene bàyyi mees fas yéene bàyyi sol tubéy fas yéenee bàyyi dem boîte fas yéenee bàyyi dem lépp loo xam ne mbubum caaxaan la loo xam ne daan nga ci dem ci ay jamono loolu lépp nga fas yéene koo bàyyi fas ci li nga xam ne mooy opération Mbuur say cër te fondation sopp Serigne Saliou taxawal ko loolu tawféex la nekkul lu ñu sos ñun waaye lu ñu jokk la ñu ngi ciy doxee ko Pastef di ci soññat bépp membre soxna boo xam ne yaa ngi ci daara ji ngi lay ñaan nga bokk ci li nga xam ne mooy opération Mbuur say cër parce que dina tax nu gën laa naw dina tax nu gën laa respect parce que la santee nga muur say awra ba sa karaw ca la bokk kon boo ca jokkee di ko muur kon yaangi ngi jëfee ndigalu Serigne Touba loolu mom ñu ci ciy bu baax jërëjëf sëñ Ablaye kan bég na lool ci laaj yi jërëjëf waaw kontaan naa trop jëriñ buuba ma xamna ma ngi lay ma ngi lay téye sax ndax da nga nek ci si yité yu metti metti kon ma ngi am tawfiq ak taysir suñu borom defal la katal ndax jëwriñ nag yombul jëwriñ yombul ta maté nga ko ndax dëgg fa yalla yaangi ci bay sa waar nu na ci Gambia yaangi ngi tamit jokk ndaw yi féré defare ay kurel kurel khassida journée khassida lek nekk koy def ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal tawfiq ak tey ci barke suñu duwa ñi ngi nek wa Badiru TV ñi nga xamanteni moy euh, online mi nga xam mo nek euh, keur serigne ñu ñew fi keur serigne ci waagi ci bisu xasida gi ñi ngi euh, dajje ki nga xamanteni moy Mourou Anta jëwri ñu fondation sop serigne salu boko ci membre Mourou Anta ma ngi lay ziaru bu baaxa baax wa alaykum salam jëwri jëwriñ Ablaye Kane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu wala kep ko xamne rek yaangi ngi seetaan bu mag wi ñu koy wax Badru TV fii ci Gambia ñu ngi lay nuyu di la siyaara bu baax di la màggal di la jaajëfal bu baax a baax a baax. Hmm. waaw jëwriñ Mour Anta fondation bi sopp sëriñ Saloum ñu ngi ko gis mu ngi nekk biir Gambia ak Sénégal fépp ni si àdduna bi jëwriñ euh, Mour Anta fondation sopp Serigne Saloum ñu ko taxawal damaa dégg ñu ne yow bokk ñi nga xam ne ñoo ko taxawal lan moo sabab ba ngeen xam ne yéen a ngeen tawa taxawal fondation bi. jërëjëf Ablaye ci laaj boobu fondation liggéey sopp Serigne Saloum day liggéey boo xam ne dañuy wax ne Serigne Saliou moo ko indi ci dëkk bi euh, daanaka Serigne Touba dafa dogal rek mu jaar ci suñuy loxo euh, ñu doon ay ndaw yoo xam ne Serigne Saliou rek la ñu am moo tax bi ñu ko déggee ñu takk suñu laxasaay suñu ndigg na force liggéey bi ni mu amee ci yenn réew dina am Gàmbi ñu jaayante jaayante ci loolu Serigne bi fekk suñ ci ba mu am fii nii ci Gàmbi yaa loolu moo indi fondation Sopp Serigne Saliou fii nii ci Gambia ñu bokk ceeg nag ay mbokk taalibe yoo xam ne dañoo bëgg Serigne Saliou ànd ak ñun liggéey bi ñu nekk di ànd ak ñun liggéey bi loolu moo ne loolu moo doon fondation Sopp Serigne Saliou. waaw jëwriñ mu nga yor liggéey tamit bu am solo si fondation bi képp koo xamante ni dugg day dugg si biir fondation bi si jëmm ji lay jaare yaa ko mën a dugg si groupe yaa a dagal carte badge boobu liggéey bi nga xam ne sëñ bi eh, def na ko muy liggéey bu am solo lan nga si xamante ni lan mooy si sa mbégte daal dëgg-dëgg. waaw jëwriñ Ablaye loolu dañ ci sant Serigne Saliou ndax fondation bi mu taxaw ba léegi poste boobu man lañ ko jox muy wàllum trésorier ki nga xam ne moo nekk ci fondation bi képp koo xam ne ba ngaa jokk ci liggéey bi moom moo lay bind dugal la ci nga bokk ci liggéey bi man maa yore man maa yore liggéey boobu noonu di ci sant Serigne Saliou nag donte bu neexee bu naqari lépp ñu ngi ciy sant Serigne Saliou xam ne natt bu la ñu Serigne bi dox ñu nekkoo ko ci fondation bi yor ko diiru bu fondation bi taxawoo ba léegi nii mais ñu ngi ci sant bu baax. jorin ma mur Anta lan ngay wax bi nga xamante mooy télé Badru TV bi nga xam ne nek nekk si kër nek nekk Gambia muy télé bi nga xamante ni l'islam rek moo ko ñor lan nga xam ne moom ngay ñaax waa télé Badru TV waaw lo lo Abla dañuy sant waa fondation bi yëpp fondation Sopp Serigne Saliou zone Gambie yëpp sax xam nga bu ma nee fondation Sopp Serigne Saliou bàyyi ma bépp ban benn zone waaye dama ci jiite sama zone ndax gis ba fondation bi taxaw ba léegi pas-pas bi ñu am pour japu ci liggéey bi muy góor yàlla yi muy soxna yi ñu ngi leen di sant ci loolu di leen wax na leen liggéey bi comme ni ñu ko waxee rek du ki ko taxawal moo ko moom déedéet liggéey bi liggéeyub Serigne Saliou la fu ko waaye dégg demal nga bindu ci xam ne liggéeyub Serigne Saliou la ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu bokk indi ànd liggéey Serigne Saliou ndax dama naan liggéeyub Serigne Touba soo ko déggee da tanga jox sa bopp Serigne Touba demal nga bindu ci rawatina fondation sopp Serigne Saliou ndax looy bokk lu ne bu ci xool jëmmi doomu aadama ji xool si mbégum Serigne kon nag maa ngi sant mbokku taalibe ci bokk ñëpp commencé ko ci suñu jëwriñ ñëw ba ci ki mujj a bindu dina wax ne liggéey baa noonu ñu ñëpp ñoo ko bokk beneen bi nag ñu ngi sant tey ñaana ñaanal Cheikh Mouhamadul taxaar Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér suñu sag la sagu àdduna la sagu yoonu murid la ndax lii mu def nii dund gii ñu koy dundal ku ne xam na ne su màggal Tuubaa mooy bis bi gën a mag ci yoonu murid murid yëpp àndandoo di ko màggal wala jullit yëpp àndandoo di ko màggal waaye bis bi niñ ko dundalee ci alxuraan ak xasida bis boobu gëmu ne murit dinañ am yitte yooyu dikk ci dundal ndax bu boobaa ñenn ñi ci lekk yeeg yooyu yëpp la ñuy nekk mais Sëñ Tuubaa dogal nañu bis bi ñu koy dund xasida ak alxuraan ñu ngi ciy ñaanal Seex Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loo tànn wér waaye ñu ngi ci ñaanal suñu waaje Serigne Seex mu Serigne Saliou mu yàgg fi loo tànn wér ñu ngi waajal nag suñu siyaare ñu ngi ciy woo ñëpp mbokk bi yëpp di soññu ñëpp ñu jàppal liggéey bi takkaat seen laxasaay si ndigg li ñoo ñoo ñoo bijaaw ñooy takk seen laxasaay nekk di liggéey suñu Tuubaa asamaan ñun ndaw ñi door a jug maa ngi sant ñëpp di sant samay jëwrin di leen ñaanal ñu yàgg Flo Tawfekh ñu ngi sant Serigne saak di sant Badru TV ndax kontaan nañ ci moom bi mu déggee lii daa bàyyi yitteem yëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ñëw ànd ak ñun liggéey bi kufuri liggéey bi ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal mu gën a kawe ba su télé yi fi nekk ndax ñun fa lañ bokk kon nag ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant ak Serigne Sall di wax jërëjëf Serigne Saliou yal nañu Serigne Saliou taxu saayir ak baatin maa ngi ñaan bis bii nii bisu xasida bii di la onze tey jii ku fi indi saafara yàlla na faju bu dee góor yàlla yàlla na am soxna bu baax bu mën a liggéey Serigne bu dee jigéen na yàlla na am góor yàlla bu baax bu mën a ànd moom liggéey Serigne Touba Serigne Saliou ñu ngi sant bu baax sant nañ bu baax jërë Abdoulaye. waa jëwriñ kii dañ koy gàttal rek ndax temps bi ñu may jeex na tàkk temps bi jeex na. maa ngi la koy maa ngi lay ziar na bu baax di la laaj liggéey koy dundee daal waa di santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax rek ci liggéey boobu noonu comme ni nga ko waxee rek comme bi mi ngi dem te it daanaka léegi mu jeex maam liggéey bi moom doon na loo xamante ni yombul lu jafe loolu la ndax nga fekk nit ki loo xamante ni dara nekkul ci moom nga bëgg cee def dara te sëriñ bi digal la ko maam loolu dafa euh, yéeme lool te it dañuy sant dañuy ñaan sëriñ bi gën ñu cee dolli bu baax a baax ndax yonent bi nga xamante ni moom la ñuy roy mu doon suñu lépp moom ba ko yàlla bëggee jàngal fekkul dara ci moom waaye da ko wax ni ko iqra yonent bi ni ko mënumaa jàng mënu ko iqra yonent bi ni ko mënumaa jàng ba mu dee ba kii maam suñ borom da ko xoj mu daal di xëm ba mu ximmili ko suñ borom daal ni ko iqra si la door a tàmbalee mën a jàng suñ borom di wàcce ay aaya ci moom kon mbir mi doon na loo xamante ne du ay caaxaan te ku ci topp ndax Serigne Touba mi wante moom la ñuy roy moom daa jël xasida yi taalif ko ci alquran fonkoon xasida yeeg alquran ndax nee na fonk leen sama xasida yi jàpp leen sama xasida yi ndax daa mel ni sama yàpp yaram laa dagg di leen jox kon ñu gën a fonkaat xasida yi bu baax a baax gën a jàppaat ci xasida yi te xam ne jàngal soxna moom yomb na waaye yombul ndax soxna moom dafa xawa lënd mi miir bu baax a baax a baax waaye di ñaan sëriñ bi gën ñu cee taxaw bu baax a baax ñu ngi tubaat bu baax waaw dama bëgg na kuy télé bi nga xam ne mooy Badiru TV ñu jóge nekk kër sëriñ si Gambia nga sànniñ si kàddu gu ndaw rek tout tout minute rek one minute rek laa soxla rek waaw xanaa di santaat sëriñ bi bu baax a baax di ñaanalaat waa ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci rajo bi bu baax a baax a baax ci di Badrun TV di ñaan sëriñ bi aj leen ba ca kaw a kaw a kaw ci barke bis bii nga xamante ni ndax Serigne Touba nee na xasidati faaxat xasaidal kiram wali taquudu abadan xayral maram ñi ngi koy dagaan ci doole xasida yi nag Serigne bi gën ñoo kartonal bu baax a baax waaye gën leen a dolli ba fu ñu fépp fu ñuy dégg rajo yi mu dem ba nga xamante ni dootul doon rajo sax télévision lay dem ba doon ci barke Serigne Saliou ngeen am ci lu kawe seen njort barke Serigne Saliou ñi ngi tubalaat ñëpp sant nañ baax a baax jërëjëf waaw asalaamaaleykum mbokk taalibe mbokk jullit yi maa ngi leen di delloo jaar kon lii moo nekkoon Badru TV ñëwoon Kër Sëriñ Tuubaa gi nga xamante ni ñëwoon couvre-feu bi ñëw si bés bi ñu mën a kooboo bës bi